passé de 6 minutes mesdames et messieurs bonjour bienvenue et très bon réveil matinal à tout le monde euh, ñi ngi leen di dalal ci seen émission matin bonheur euh, ñi ngi ci mercredi euh, jeudi 5 novembre 2020 ñu nekkaat ci beneen numéro bu bees et bien sûr l'avant-dernier numéro de la semaine fas yéene nag tey waxtaanee lu jëm ci émigration clandestine xool li nga xamante ni moom moo di aussi entrepreneuriat bi naka lañ ko mën a doolelee ba ndaw yooyu mën a toog fii ci biir réew mi waral tey ñu dox jox Euh, euh, la parole au jeunes euh, tey jii nañ fi accueillir ki nga xamante ni moom moo di président de la fédération des jeunes entrepreneurs du Sénégal nekk Cheikh Ndigal béy moom lañ fi fas yéene dalal ci kanam tuuti bu weesoo loolu itam ñu dalal fii ki nga xamante ni moom moo di Petit Ndiaye nekk blogueur activiste en même temps ak it ki nga xamante ni Abo Mbaye moom immigré la donc moom bu ñëwee c'est sûr que dinañu raconter bu xam ne lu bëree bëri ci li nga xamante di euh, wàllum immigration rawatina sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en Europe euh, te jaar ci gaal gi ñëw ak seen condition de vie foofu euh, dinañ ci gën a indi yaatal ci kanam tuuti ci seen émission matin bonheur laata loolu ñu daal di leen di indil. wàllum actualité comme ni ñu koy defee euh, fajar bu jot dañ koy daal di euh, doore ak xibaar yi nga xamante ni moo tukkee euh, fële ca conseil des ministres bu démb bi nga xam ni njiitum réew mi daal dina koy jiite am ci ay nit yu nga xamante ni yenn ci ay Euh, euh, ñu nekk bien sûr ci régime bi ñu daal di leen di euh, tab jox leen yeneen poste am ñoo xamante ni itam daal di nañuy dugg ci biir yenn direction yi ki ci mel ni kii di Thérèse Faye Diouf désormais moom moo nekk Euh, administrateur général bu FONGIP bi nga xamante ni mooy fons de garantie des investissements euh, prioritaires moom mi di Thérèse Faye Diouf nekkoon ci case des tout petits moom la ñu daal di euh, jagleel boobule direction donc FONGIP moom moo fa nekk moom moomu di Thérèse Faye waaye itam ki nga xamante ni moom moo di monsieur Moussa Bokar càmm Euh, nekk na itam agent judiciaire de l'État ki nga xam ne moom moo di Omar Ndoye nekk enseignant chercheur moom lañ ko daal di rek euh, nommé euh, président du conseil d'administration directeur général bu société boobu di AIBD SA moom moomu di Doudou loolu bokk na ci li nga xam ni moo gënoon fës ci wàllum xibaar ak yenn décret yoo xam ni génn na fële ca conseil des ministres bu démb bi euh, hors de chez nous fële ca États-Unis ñuy wër rek di wéy di xaarandi li nga xamante ni moom moo di euh, vote yi fan lay mujjee jamono ji euh, Donald Trump moom nee na dina yóbbu li nga xamante ni moo di mbir mi euh, ba fële ca cour suprême ndax dafa commencé rek di contester yenn ci ay démarche ak résultat yi nga xamante ne euh, génn na jamono ji daal mën nañ jàpp ni moom mi di njiitum réew mi di Donald Trump fële ca États-Unis mi ngi ne rek dañu war a recompter waat voix yi ci état yu bëree bëri jamono ji li ñu mën a jàpp itam moo di Joe Biden moom moo daal di nekk tête avec 264 euh, sur euh, contre 214 donc loolee la ñu mën a jàpp pour le moment euh, ci grands votants yi donc peut-être grands électeurs yi ci kanam tuuti laata donc si journée bi fii léegi 20 heures dinañ ci gën a am lu leer ci évolution bu Euh, présidentielle américaine yooyu ak suñu correspondant bi ñu fa toogal foofee ci États-Unis ñu daal di leen di defal euh, point du jour lié à l'évolution du coronavirus au Sénégal ak euh, ca àdduna bi yëpp donc Sénégal démb daal dinay enregistré dix cas positifs quatre-vingt-dix patients sortis d'hospitalisation ak ñi nga xamante ni itam ñoo nekk cas grave yi ñu ngi toll ci quatre ñi ngi nekk en service de réanimation patients jamono ji nag euh, nombre de patients sous traitement yi ñu ngi toll ci 78 donc euh, bien sûr en dessous de la bar des 100 euh, cas loolu lañ mën a jàpp 79 donc 15 650 patients ñoom ñooy jot am virus bi du 2 mars à ce jour 15 245 personnes ñoo ci daal di wér ñi nga xam ne nag ñàkk nañ ci seen bakkan ñi ngi toll ci 326 patients téeméer boo jël jamono ji juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar daal di nañu wér ci mbas mi fii ci biir réew mi ñu jógee foofu xool bilan global bi li muy joxe moo di 48 millions 445 euh, mille 414 euh, moo di bilan global ci àdduna bi yëpp ñooñee ñoo jot am euh, virus bi 1 million 231 mille 444 ñoo si daal di décédé nga xam ne wér nañ toll ci 34 millions 558 mille 420 waral nag ñi nga xam ne jamono ci ñi ngi ci ñi leen di fàcc ñi ngi sous traitement toll ci 12 millions de personnes ñoo xamante lu topp ñi ngi ci euh, traitement wu euh, Covid 19 bi 71 euh, virgule 33 pour cent loolu mooy taux de guérison bi suñ doon ko xayma. ci àdduna bi yëpp loolu la ñuy def daal di xool li nga xam ni moo di revue des titres journaux yi tey lan lañu xëyee ak euh, xibaar yi ñu dooree ko ak li quotidien ñi nga xam ni dafa ñëw ci ñi nga xam ni à la dernière minute lañ leen daal di rek euh, recalé mu di Maodo Malick Mbaye mbay John ak kii di Fatou Diané mu mel ni remaniement ministériel bi ba tey daal mi ngi woy euh, di dem ba yenn direction yeeg yenn bërëb yi pareeguñu en tout cas bu ñu xoolee ci dernière euh, nomination yi waaye itam euh, lii quotidien di wax euh, la tukkee ci premier conseil des ministre bi nga xam ni moom la ñu njëkk a def gannaaw bu ñu taxawalee gouvernement boobu di wax ni Macky Sall presse ses hommes mu mel ni am na ay exigences yoo xamante ni jox na leen ko rawatina di leen ñaax ñu gën a accessible ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ci population bi Sud Quotidien daal di ñëw ci euh, li nga xam ni moom moo am diggante bi fi euh, Idrissa Seck duggee ak euh, léegi ñu bëri daal di rek wan ko ginnaaw FDS ak lii di FSD BJ bu kii di voilà FDS bu Babacar Diop. docteur Babacar Diop ñoom ñëpp euh, daal dinañ quitté IDI 2019 loolu tukkee ci nomination bi nga xam ne euh, nommé nañ ko kii di Idrissa Seck fële ca e mu daal di rallié wu rek ak euh, bien sûr le régime en place Walf Quotidien daal di ñëw ci wàllum lu mu tuddee élargissement de la mouvance présidentielle anam bi nga xamante ni mouvance présidentielle bi jamono ji mi ngi gën di yaatu ndax nit ñi nga xam ne ñu ngi leen ci ñu ngi leen di fekk si mu mel ni daal Walf Quotidien daal dinay xool naka lañ mën a analyser boobu le mbir waral mu ne dans la tête de Macky loolee le Walf Quotidien xëy ne tey ci ñu jógee foofu daal di euh, xool euh, Vox Populi moom dafa ñëw ci kii di Aliou Sarr di euh, fësal ay kàddoom di wax ne am na ci lenn loo xamante ni mi ngi koy regretter diir bi mu nekkee ci bopp CNG de lutte bi euh, gannaaw ba nga xamante ni jamono ji ñu ngi xool kan moo ko war a uutu euh, ci boobule bërëb donc moom mi di Aliou Sarr lañ daal di jox kàddu ci yéenikaay bi Témoin Quotidien ñëw ci ba tey ci wàllu wàllum nouveau gouvernement bi ñuy tëral mu mel ni njiitum réew mi di président Macky Sall daal di nay tëral juróom benn ci ay ponk ponk yoo xam ni jàpp nañ ni moo gën a nekk yu euh, prioritaire loolee la euh, témoin xamle boo leen tijjee yéenekaay bi gis ci yooyu les point en détail bien sûr euh, ci le témoin et quotidien l'observateur daal di def enquête ci cabinet d'imagerie médicale yi nga xamante ni mi ngi fii ci biir réew mi te booy xool euh, mafia dong la ndax yenn soins yi nga xamante ni ñu ngi koy jox patient yi euh, doon na loo xamante ni dëppoowul ak yoon en tout cas euh, benn mafia lay ko tuddee boo xamante ni ñoom ñoo ñu waa l'observateur daal di nañ def immersion ngir xool ak dund lu ni mel naka la ko seen ay clients ak ñiy jaar foofu di dundee saa su Libération euh, daal di ñëw ci rescapé yi nga xamante ni ñoom ñoo euh, génnee ca pirogue ba nga xam ni dafa rek euh, suuxoon fële ca Almadi gannaaw ba ñu doon utali Barça donc fële ca Espagne mu mel ni PV bi daal di nay génnee ay détails yu am solo wax itam ñi nga xam ni ñoom ñoo di ña ko fekkee di raconter naka lañ vivre bi la mbir dañu si bëri àddu nañ ci ñoom ñu ngi ci yenn kaay bi di Libération. ñu jógee foofu daal di xool euh, beneen yéenekaay L'As Quotidien yi nga xam ni dafa ñëw euh, ci conseil des ministre bi nga xamante ni euh, kii di njiitum réew mi di président Macky Sall dafa joxe ay digle yu bëree bëri rawatina li nga xam ni moom moo war a doon doxalinu ñii di ministre yi envers le peuple ak liñ leen dénk loolee la L'As Quotidien xamle fësal itam li euh, nga xamante ni moom moo di euh, Thérèse Faye Diouf mi ñu tabb fële ca bopp euh, FONGIP FONGIP critique moom ba tey ci loolee sax la ñëw mooy nomination bu Thérèse fay Diouf mu ne dafa mel ni erreur de casting moom moo am ndax kii di Thérèse Faye Diouf warul mën a am yenn aptitude ak li nga xam ni moom la war a am ngir mën a jiite institution bu toll noonu loolee la critique quotidien xam xamle les échos daal di ñëw ci ministre yi nga xamante ni ministre bi di Pape Amadou Ndiaye moom mi nga xam ne dañ ko fal bu bees di ñu gis ab vidéo boo xam ne mi ngi doon euh, circuler depuis euh, bi ñu ko nommé ñu wax rek wàllum séddoo bi ñu nar a séddoo xaalisu réew mi moom daal di nay weddi ba mu set boobu les vidéo di wax ni euh, na mu ko waxee ak contexte bi bokkul benn yoon moom mi di ministre bi di Pape Amadou njaay moom moo xamle lu ni mel. direct news daal di jox euh, kàddu kii di maître euh, Djibril War donc moom mi ngi wax rek euh, ci wàllum nomination bu Idrissa Seck li muy ñaax daal mooy nit ñi ñu bàyyi ko ci jàmm mu liggéey loolee la direct news xam le gannaaw ba ñu joxee kàddu gi kii di maître Djibril War ñu jóge ci euh, direct news jeexalee ko ak suñu lamb mi nga xam ni dafa daal di fësal ki nga xam ni mel na ni moo fas yéene doon président bu CNG Bira Sène ñu ne fas yéene nañ ko confirmer ce jeudi euh, joxe nañ itam ay euh, qualité am ak i critères yi nga xamante ni moom lañ ko ràññee donc loolee la suñu lamb xamle. tey jii di fësal kookee nga xam ni jàpp nañ ni mën na nekk président bu CNG de lutte bi loolu moo nekkoon li gën a fës ci wàllum yéenekaay yi ñu leen di fàttali que nous sommes en direct euh, comme